soxna Faati ja di sama maam sëñ Abdu ja di maamam wet googu ñoo fi bokk loolu laay wax ñi fi ñi fi daje ñëpp soxna maam say moom maa ngi koy nuyu moom itam moom it di bokk lépp ak moom ndax moom itam way juróom wu jigéen doomi suñu aafe la ñu tam sama way juróom jigéen doomi suñu xaasim moom suñu aafe ñu ñu bokk lépp kon ay bokk laa fi dajeel yoo xam ne xëy na dama dama fee dama fee dama dama dama dama dama fee dajeel ñoom te te yëgoowuñ kon loolu maa ngi ci sant yàlla di santaat ci mbooloo mi ma fekk ak dal gi di dollee sant yàlla ndax bi fa sëñ Moodu mi ñëwee ànd ak siñ Seex Kayre ak siñ Bamba Fay di ma yëgal bis bi bi ñëwee wax ma ni mu daan doxe ak ni muy doxe man ne ah lii nga fi wax de alhamdulilah tege na ci aw de ndax nu nit dañuy taamoo fu ñuy teew ci yëngu yi wax dëgg yàlla amuñ solo waaye nag am nañ fullay lëggéeyab sëriñ bi moom fuñ fa séenu ne ma fay doxe na mi war a doxe foofu la teg suñ tàkk ndax sama maam suñu xaasim jooju dana wax ne foo dul amee njariñ doo doo foofu dul jariñoo doo fa jariñe bu wutiwoo fa dara bu fa naa ne boo fi doon dama séenu ne nag dinaa fi jariñoo dinaa fi jariñoo tax ma teew fi ma ñëwee it waaye bi may door a yëg rek xasida gi ma njëkk a ñu koy jàng njàng ma wax dëgg yàlla teewlu naa ko ndax neex ga ak teg ga ci aw yoon durus laa fekk góor ñi féete fi jigéen ñi féete loolu it euh, mooy li war a am ndax ak murit daa am na muy doxe nag noo xam ne waruñoo xëtt lam daan doxe sëriñ bi bëggee ko noonu kon alhamdulilah maa ngi leen ndokkeel ci loolu damay damay bokk mbég mooma ak yéen ndax mbir mu ne nam war a doxe bu ñu doxee ak sant yàlla li ko tax a jóg di jëmmal wala nus nus ko mën a tudd rek jëm Cheikh Mamadou Fadal di lu am solo ngeen defe ko ci ci ci barab bii ñépp daje fi loolu eh, ak la ngeen ko ñu ngeen ko tudde Cheikh Mamadou Moustapha ak ak ak ak ñi ci sàkkul ñaan lépp di yiw woo xam ne lu ci beru rek jar nañu teew fi ñun ñëpp kon maa ngi leen di seereel ne ñu ngi koy ànd ak yéen di ñaan suñu borom lépp yëngutu bi yal na lépp di mbégum sëriñ bi biñ ñëwee di ma ko wax daal dama leen lépp daal eh, yal na yal nañ ci yal na ngeen ci daje ak ngërëmul sëriñ bi ndax loolu moom ci la lépp nekk ngërëm mooy faju aajo yal nañ ko ci sëriñ bi defal xanaa soññante ci suñ biir rek ci sax ci lii mooy ak taalibe bi moom moo fi nekk te mooy iman islaam ihsaan moom mooy mooy jullit boo xam ne day doon dëgg dëgg ab jullit danaa koy faral di wax damay wax ne am murit gaa yàlla yi fi jiitu yépp baatu murit boobu lañ doon jëfandikoo di ko bëgg mooy kuy wut yàlla rek al murit ba sëriñ bi ñëwee nag daa jëmmal tur woowu moom lam lam lam lam lam lam doon woote damaa xamut ab tariixa laa koy mën a tudde wala man wala wala déet daal waaye lan nekkoon moom loolu ku kuñ tudde murit rek xelum jëmmi Sëriñ Tuubaa la ñëpp di dem te mooy loolo mooy ab murit mu sàkkal ko nag ay yoon yoo xam ne ci lañ war di dox saa ne jëmmal ko doonul loo xam ne réer na ni ngi fi ba léegi nii moom ci boppam nu mu daan doxeel boppam suub ca mbooloo ma ñu ci daan dox yar nit ay nit ay jëmm bàyyi leen fi loolu nga xam ne xàmmewu ci woon njabootu boppam giñ doon tuddee njabootu boppam ak ña newoon ca ëtt ba ñoom ñëpp ci lu ci lu yàggul rek waxtaan wu ñu doon def ci suñu xaasim moomu dégg naa fa kàddu gu am solo euh, kooku wax ko ne dafa masa a ànd ak suñu xaasim chauffeur bi di dawal mu ne ko ñu romb njaareem noonu ci kër gu mag gi mu ne ko ëtt bii de xàmmewul gó xàmmewutoon géer ak géwal moom suñuy xaas yi moom sëriñ bi daana ko awloo ay jafri jaafri yooyu ñu daan def téere yi te loolu am na ñeneen ñuñ baaxoon xam ne ñoo koy liggéey ñooñu ñuñ baaxoon a xam ne laneen lañ léegi mu leen di bindloo alxuraan nga xam ne dafa bëgg xam le ne ñëpp daal la ayib alxuraan bi waxoon rek taqwa rek am solo loolu la doon yare nag taalibe yi ñu dëgg-dëgg nit lan la lan la war a lan la war a doon nit nit doomu aadama suñ borom da koo teral teraanga jooju nag ba muy bala muy feeñ dëgg-dëgg ñu seetlu ko ci mooy nit ki doon ab julli dëgg taragal yàlla ndax bu ko xasee doon fi mu ne euh, taxaw na taxawaayu la ko yàlla fonke woon ba def ko xalifatullahi fil ard loolu nag ñu war koo bàyyi xel saa saa su ne mooy loolu suñ Mouhamadou Mountakha doon wax bu yàggul rek ba tey na mm, am am gore gore am jom waaye nag jaay ko yàlla loolu ñu koy bàyyi xel mooy nuy am jom ci ci te am ngor ngir ngir jëmmi sëriñ bi wax dëgg yàlla wax naa ne kuy tuddoo sëñ bi boo goree da nga da góorgóorlu foo nekk it kenn du la xeeb ndax lépp loo xam ne def na ko damay wax def na ay effort yu baree bari maa ngi jégul ci baat boobu sax ay ay ay ay jumtukaay yu mat sëkk ngir ñu xam suñu bopp ngir ñu ngir dimbilan te ndimbal loolu moo ñuy jariñ tey ak ëllëg loolu def na ci damay damay damay wax ne booy booy booy booy xalaat sëñ bi da ngay mujj ak boo doon koy yërëm da nga koy yërëm ni mu bëgg nit ñi jariñu ak ni muy laabiiree di bind ci ay ay ay ay téere def ko ci yoo xam ne ay xasida la yu ñuy jàng di ci jariñu yii ngeen doon jàng ak yoo xam ne dañ ko war a jàng ngir sàkku xam-xam tamuy tamuy faratay ci jamono ji nga jëmmi sëñ bi it dañ koo bëgg tam moom it mu am lum nu bëggal lum ñu bëggal it ñu xam ko lu am solo la te loolu ci njàng mi dañ koy xamee ñu ñu ciy soññee saa su ne daara yi loolu loo ci am solo lu mu néew néew mu am ab jàngalekat buy jàngale alquran ba nit ñi xam seeni farata di ci dellu te Sëriñ Tuubaa tamit moom lim bëgg ci ñun mooy ñu defar loolu moo ko ñor ci ñun yàlla nañu dimbaleen yàlla nañu suñu borom dimbaleen bañ xam loolu ndax moom wàcc na wàcc maanaam maanaam weesu na wàcc sax laay wax moom bàyyil nañu loo xam ne daal mën nañ cee jariñoo nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax baax yéen nag li ngeen def nii ci la bu ngeen jëmmalee dara it bu ngeen ñëwee loola it nañ xam ki ki tax ngeen jëmmal ko ana mooy kan ak lan la lan lan la taxewa moon ci ci ci ci ci liggéeyu suñ bi moom Cheikh Modou moom mooy dëgg-dëggi murid saadix boo ko den boo ko doon misaal misaal yu leer nañ yoo xam ne da koo def li muy doon doon loolu mu nettali boppam daan ne daan daan yàgg naa bëgg a liggéeyal sëñ bi bi liggéeyu jumaa ji taxawee ci ci ci ci ba muy soog a taxaw nga xam ne ci ci booba ci teewug sëñ bi la ba mu ko santee maam Thierno yabal yabal leen ñu ñu ñu ànd ak moom liggéey bi nee na moom da ko ne yow de yàgg nga maa wax ne da nga maa bëgg a liggéeyal ab liggéey ngi nag noonu ab ngi noonu nag boo xam ne amul lan la ciy fakkastal lépp a ngi ci daal nga xam ne moom naka jekk loolu rek la bëgg te jëmmal ko tey mës mës lool loolu li mu ciy am am ndam nag taxul mu mas a doon dara yéen ñëpp nga koy déglu kooku koy jottali bi mu koy wax naa ko Cheikh Amadou Fadel nee na nee na bëgguta doon lu dul taalibe bi mu ne ko déedéet bëggumaa doon nekk ci biiram rek te loolu yi da ko doonul lu mu wax waaye dañ ko dañ cee tëj bët euh, loolu mu daa nga xam ne xasida yi mu def ci siñ bi ngir bëgg ko ak cafeel goo xam ne day dool ko day day day wone ne saa su ne ni bëggee sëñ bi day dolli ko loolu lay wax saf ko du mooy araahu fardan ne tuur ay rongoñ ñu bëgg sëñ bi man na gis naa ne lool farata la nga xam ne loolu xubbi lu dëhra ne xubbi siwaahu ni bëgg ko sama diiru jamono nee na yor doy na ngir may bëgg keneen maanaam te te loolu lépp nag gis ngeen ko moom woyof toy yu fees jàll gis ngeen ko moom moom doy na am misaal ci am murit daal ñu doon ay murit moom am murit day jéem a dox nañuy jéem a dox saa su ne mooy di dolli ko pas-pas xam ne suñ tubaab mii njariñul neen la waaye nag am nañu ciy jariñoo dama koy faral di misaal ni gone gu ndaw boo tegoon fee wurus xàmmewu ko xamu ci dara xamul ne lu ko jëm moom da koy fayee mën na ko sànni mën na ko def la ne sëñ bi noonu la maanaam day day loo xam ne kenn ku ne du lu ñuy rek waaye am na ciy jariñoo am na lu mu fi bàyyi njariñ loo xam ne te kenn mënu koo jeexal yàlla na suñu borom dimbale bañ jan jariñ ci baax a baax nag maa ngi sant bu baax di gërëm kaddu yi xam naa moom euh, bett na ma te baaxuwuma ko waaye nag kaddu yi xol la daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Fallou Mbacké am suñu Mamor seet na loolu ni ñu ko waxee sànq wax dëgg yàlla teew gi nga teew ci jotaay bi ak taaral gi nga ko taaral rek mënuñu ko misaal mënuñu ko wax. kon bàyyee ki nga xam ne am na fay muy Cheikh Ahmadul Xadim meewul bor daa am fay yàlla na la fay ba wis la ci barki Cheikhul Xadim euh, kilifa yu baax yi nga dendal Serigne Bara Mbacke ak seen jiili wax dëgg yàlla taaral ngeen jotaay bi lii daal moom fawxo fawxo fawxo na ci ñun daal wóor na jëmmi Serigne Touba yal leen borom bi teg loxo zahir ak baatin barki Cheikh Ibrahima Fall Lamp kon Mbacke nga def ñaan rek ñu jëm laa yolomal ndax xam na ne jotaay bi yàgg na tey tey bari na kon fu waaye rek. mën naa fas tey wax amin ak ci borom tuba amin ya rabbal alamin amin ba ci tuba amin ya rabbal alamin amin ba ci tuba amin ya rabbal alamin